professeur Ousmane Beye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sabine. professeur Ousmane Beye nga nekk euh, économiste déjà naka ngay analyser grand oral bu premier ministre Ousmane Sonko ak euh, gouvernement di ñu xamal ni dette publique bi fi ñu toll nii euh, doy na waar quinze milliards quinze mille milliards lañ ko xayma au lieu de treize mille milliards naka nga gisee en tout cas kàddu yi nga xam ni PM yëkkati na ko ci situation wu économique bu Sénégal. waaw déglu naa démb premier ministre wante moom euh, wax ji mu wax yëpp ni ngi ko jëmalee ci affaire luubal ak ci affaire ay euh, chiffres yoo xam ne dañ ko joxe te méngiwul ak euh, li nga xam ne moo am ci affaire suñu koom fu mu toll affaire bor bi fi toll ak suñu déficit budgétaire mais yooyu toujours boo koy def da ngay laaj ci ban base la defee yooyu calcul parce que ci PIB lañ koy calculer booy def endettement wala déficit budgétaire da nga koy calculer nga méngaloo ko ak PIB maanaam koomu réew mi mais koomu réew mi ñu bari dañu fàtte ne dañ ko rectifier dañ ko corriger maanaam dañ ko xoolaat parce que nañ ko doon euh, xayma bu njëkk 1999 dafa am yu bari yoo xam ne daf ko fàtte jëlu ko ci calcule bi ci ci ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci koom bi moo tax bi 2014 ñëwee ñu jël ko comme année bi nga xam ne at bi nga xam ne ci lañu commencé waat di calculer suñu koomu réew donc bu 99 dañ koy bàyyi parce que diggante boobu ak 2014 am na yu bari yoo xam ne jë jëlu ko woon surtout ñiy yëngatu ci secteur informel bi informel bi quoi donc ak euh, technologie yu bees yi euh, liggéey yu bees yi nga xam ne kenn jëlu ko woon bi ñuy calculer donc mais boo calcu boo corriger ce PIB nga calculer ko waat ko à partir de 2014 dana yokk sa PIB lu mat fanweer ci téeméer boo jël cest à pour cent kooku da koy yokk boo defee calcul ci PIB comme boo xam ne mooy comme bi ñuy euh, basé wu 1999 ak bi ñuy basé wu 2014 kooku xam nga euh, day mel ni yàlla ak yàlla day wute calcul yi yi ñu si génne du nekk benn. voilà donc ñoom foog ñu wax ñu ci ban base la ñu calculer yi yi ñuy chiffres yi génn démb ci PIB bu bu njëkk wala PIB bu ñu bu ñu corrigé bu ñu joyanti voilà donc loolu foog ñu wax ñu ko ba pare euh, Cheikh Diba bi nga xam ne mooy ndeyu mbili gi moo foo waroon toog dem te toogu fa kooku moom jaaxal na ñëpp parce que moom yu bëree bari moo na ci tontu parce que nekkoon na fi yor responsabilité yu rëy rëy ci Macky Sall te loolu yàggul bi Macky Sall demee ñu def ko ministre de finance donc moom mënoon na fa teew pour euh, leeral yu bëree bari te teew foon ba pare premier ministre moom ñaari kii rek la wax affaire luubal ak affaire bor ak yu demee noonu mais wax waxul affaire liggéeyu xëyu xale yi xëyu ndaw yi waxul affaire euh, loyer bi waxul affaire euh, secteur yi minier am na yu bari yoo xam ne waxu ko te daf ko waroon wax am na sax benn. journaliste tubaab bu AFP. Mhm. bu ko posé question mu ne ko question boobu bokkul ci waxtaan bi. parce que daf ko ne langeen di def pour euh, faj euh, li nit ñi di xaar affaire liggéey affaire dund bu seer bi ak yooyu moom tontu ko. Mhm. daf ko ne kooku bokkul ci waxtaan bi. or ko yooyu bokkul ci waxtaan parce que yi muy wax démb dafa mel ni dafa bokk ci déclaration de politique générale bi mu bañoon wax fële ci assemblée. Mhm. mu wax ko démb. ah donc kook moom dana xaw a tey xel. Mhm. kon falsification yi ñuy wax professeur chiffres yi loolu est-ce que lu mën a nekk la wala mënul nekk. man gëmuma ne état mën na falsifier ay chiffres moo tax ma ne foog ñu wax ñu ci ban base ci lan lañu sukkandiku pour génn chiffres parce que dafa am PIB boo xam ne kenn tali kenn joyantuwu ko mooy PIB bu njëkk ba bi ñu doon calculer <coughs> bi ñu doon calculer. ci atum 1999 mais bi 2014 ñëwee dañu bàyyi 1999 jël 2014 def ko année at bi nga xam ne ci lañu sukkandiku pour calculer koom bi ak yooyu su suñu PIB donc diggante 99 ak 2014 am na yu bari yoo xam ne fi nit ñu di yëngatu ci koom kenn jëjëlu ko woon bi ñuy calculer PIB bi ah mun nañuy wax secteur informel mun nañu wax technologie yu bees yi Euh, xam nga mhm. voilà yooyu yëpp euh, kenn jëlu ko donc ñoom dañu parce que boo calculer waatee ce PIB à partir de 2014 nga corrigé ko dana yokk fanweer ci téeméeri boo jël xam nga kooku kooku xaw na bari. Mhm. donc loo ci calculer day yokk mbaa mu wàññeeku. par exemple li ñu wax naan endettement quatre vingt pour cent la au lieu de soixante dix pour cent ci ban PIB lañ ko calculer bu ñu ko calculer sur la base du PIB. corrigé de 2014 mun na nekk 70 pour cent 73 pour cent mais boo ko calculé nga sukkandiku ci PIB ci koom bu njëkk ba 99 day gën a yokku 80 pour cent kooku tamit eh, même le déficit budgétaire noonu lay demee voilà kenn waxu leen ne bu ñu def réduction des comptes ku ñu jox xaalis bu waxtu bi jotee dangay ñëw nga wax xaalis foo ko dugal boo lubalee ñu yoon tegu sa kaw mais kooku da nga koy def jarul coow lu bari. da koy def bàyyi ñu ko war a def ñu def ko te yow nga jublu ci liggéey bi parce que liggéey bi bari na euh, dund gi cher na xale yi liggéeyatuñu chômage bi bari na ñun nit ñi foofu la di xaare mais kenn waxul ne kenn du euh, wax xaalis bi ñu lay jox foo kooku moom ala kulli al même sa kër sax boo joxe sa dépense euh, am na yoo xam ne bu duggee fu mu warul dugg da ngay laajte koo xam ne nag def nga nekk su dul noonu. yoon tegu sa ko man je crois que loolu la mais man sama euh, samay laaj daal mooy ci ban base la ñu sukkandiku pour calculer chiffre yi ñu jox démb. Mhm. ci PIB bu njëkk la boo xam ne wu ko wala PIB bi ñu corrigé bi ñu koy wax PIB rebasing. waaw loolu loolu moom lu mat leeral la ko. Euh, actuellement aussi ñuy wax euh, professeur ne euh, dañuy yëkkati subvention yi comme ni ko FMI banque mondiale digle woon tey jii bu fekkee état bi def na loolu ban répercussion lay am ci dundinu sénégalais est-ce que dundin bi dafay gën a yokk wala dafay wàññeeku. waaw xam nga nag yooyu c'est des instruments de politique économique subvention Macky daf ko daan def daan ci def xaalis su bari sax. parce que xëy na dafa amoon yërmande ci askan wi parce que li dañuy wax naan dañu def vérité des prix njëkk lu muy jar rek lañ koy def loo lañ ko jaayee lu mu génnee ci usine bi rek dañ ciy teg dara rek noonu lañ ko jaaye mais Macky Sall dafa daan def courant buy jar par exemple euh, nu mu tuddati euh, téeméeri dërëm bu ko euh, man wala yow wala sama morom war a fayee téeméeri dërëm état bi day jël ci téeméer yi juróom benn fukk mu fay ko yow nga fay juróom ñetti fukk loolu la ñuy wax subvention mhm. bu ñu teggee subvention bi nag yow dootoo fay juróom ñetti fukk mais téeméer dërëm ngay fay xam nga kooku dafa cher même ak subvention bi sax nit ñi duñ ci génn parce que nit ñu bari seen loxo jotul seen gannaaw même ak subvention bi nit ñi dafay jafe pour ñu fay ay courant mais léegi bu ñu teggee subvention bi ah dana tar dana gën a métti ba pare essence bi ñuy jaay. Mhm. dana yokk essence bu yokkoo transport day yokku transport yi booy naree fay téeméeri dërëm pour dem Grand Yoff da fay eh, ñaar téeméeri dërëm wala yu demee noonu eh, mburu mi dana cher ndax boulangerie am na ñoo xam ne dañuy seen machine day dox ak courant ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tailleur yokk menuisier yi dinañu yokk parce que ñi jafandikoo ak essence yëpp bu yooyu yokkoo ñoom dinañ ko yokk aussi. Ah, alors donc euh, subvention ah, mais nag foog nga ñeme waa FMI. Hmm. foog nga xaw a dëgëral parce que boo nooyee rek dañ lay teg loo xam ne sa askan du ko attan. Hmm. ak yi demee noonu ba pare foog nga dëgëral mais foog aussi nga mën a négocier foog nga mën a waxtaan waxtaan ak waa Fonds monétaire waxtaan ak waa Banque mondiale xamoon leen ne dëkk bu néew doole lañu suñu askan wi seen loxo jotul seen gannaaw bu ñu dindee subvention de remettre ci ñoom te mën na indi. njàqare ci dëkk bi mën na indi ay trouble mën na indi yu bare bari hmm. syndicat yi mën na grève xale yi mën nañu jóg génn ci mbedd yi ak yu demee noonu donc leen di ñaan ngeen mee ñu ñu suñu subvention fekk benn at ñaari at dañuy yaakaar euh, génn gaz beeg pétrole bi ñu mën a wàññi ndànk-ndànk subvention yi noonu lañ ko waroon toxalee hmm. mais doo ñëw rek bëgg yow suba rek naan da nga ko kooku bu ñu ko defee moom li mu leen di conseillé mooy nañ ko bañ a def nañ def ndànk parce que buñ ko defee li muy jur kenn xamul lan la. voilà dernière question Ousmane Beye euh, taux de chômage aussi bu ñu sukkandikoo ci ANC dafa yokk euh, yokkute boobu lan moo ko waral exactement lu ko cause yi. waaw yokkute bi xam nga koom bi xaw na taxaw tuuti. kooku moom ñu bari wax nañ ko. boo xoolee sa poche boo xoolee sa kër euh, xam ne bi xaw na taxaw. Euh, prix na. Euh, ak ñu ñi nga xam ne ñu bari ñu daan liggéey dañ leen ne nañ toog seen kër moo sax wax dax waa lu sax dàqale ndural ñu nekkoon poor ñu nekkoon ci bâtiment bi di liggéey ñu xëy rek ne nañu taxawal euh, chantier yëpp ak secteur minier ñu bari ñu bari bari boo leen joxul liggéey kañ ñi am liggéey bu leen dax mais boo leen daxee di gën a yokk chômage bi waaye chômage bi foofu la toll te xam nañu ne Sénégal nit kuy liggéey yaa ngi boot sa gannaaw lu mat fukki nit euh, donc kër goo dem kenn bu fa kenn di liggéey moo yor kër ga yëpp euh, donc kooku day gën a metti ba pare coow lu bari yëpp euh, day tax du daral xelu ñi nga xam ne ñoo yor seen xaalis di ko indi ci réew mi ñu koy wax investisseur wala partenaire technique et financier même suñu homme d'affaires fii sax dañuy xaw a téye seen loxo parce que dëkk boo xam ne dafa am ay yëngutu war a dalal leeru fa wala ñu koy jiite xamuñu ban yoon la ñu jël mais ñi indi seen xaalis dañuy taxaw di xaar surtout que dëkk boo xam ne yow amaloo xaalis bu doy yow booy euh, def sa koom foog nga euh, nu mu tuddati dem bitim réew foog nga jéggaane affaire xaalis ñu lebal la pour nga mën a def li ngay def donc ñu def ndànk baax na kenn waxul ne kenn du contrôler dañuy contrôler mais nga def ko mu bañ a am coow bañ a am folklore te yow nga ci liggéey bi bàyyi ñi nga xam ne ñoom nga sant ñu def contrôle ñu def ko ci ci tey ak ci jàmm ak ci tranquillité ah. yow nga liggéey parce que ñoom li leen xaar mooy ñu liggéey xale yi dañu sonn xale yaa ngi jël gaat gi gaal gi di dem gis nga sa yi nu mu bare dañuy mm-hmm. wax ay xamul mm-hmm. braquage. ak agression ak région yi dafa métti ah dëkk métti nañu xoolaat seen bopp ñu taxaw def ndànk parce que dëkk boo koy yor da nga koy def ak tey nga jiital sa xel ba a ji nga bañ a jiital sa xol nga jéem a wax ak ñëpp parce que ñëpp ci réew mi la ñu bokk ñu voté ak yow ak ñu voté ak yow nga waxtaan ak parti politique l' opposition nga waxtaan ak syndicat yi dëkk bi dal parce que dëkk balaa muy jëm kanam balaa muy neex liggéey gouverner dëkk bi dal waaw léegi nag euh, bu ñu yokkee prix ak yooyu chômage bi gën a bari kooku moom euh, dëkk bu boo ko defoon France États-Unis foo ko def dëkk bi dana yëngatu te bu yëngatoo moom euh, du baax ci ñi nga xam ne ñooy ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf Sabine man tamit maa leen di remercier merci beaucoup bonne journée. voilà ñuy fàttali ni sa xam-xam dafa màcc ci wàllum koom-koom professeur Ousmane Beye jërëjëf.